mais ñaari at hmm. yi li ko gën a feesal mooy ay nit ñu baax. nit ñu am valeur am ay combat am ay idéal di ko ñefe ñooñ rek lañ fa doon denc. dañ ko denc denc denc denc et dañoo dem réew moo xam ne mandat de dépôt dafa yomb. gaaw te xam nga xam prison li muy def ci nit moo graaw non seulement da lay rebelle wu ensuite da lay doon benn nit boo xam ne mandat de dépôt léegi nag juge de liberté boobu ñu bëgg a créer. day am solo. parce que dina atténuer charge bi entre le juge ak euh, la décision dina mën a fexe ba mhm. nga war a def mandat de tout mën a sëñ bi jaru ko nañu xaar leneen mais ci beneen wàll goo xam ne justice aussi daanaka coow nañ ko fi lool muy ci côté politique bi ay élection ñoom seen ñu koy ngànk mooy conseil constitutionnel ñu bëgg ko réformer def ko cour constitutionnel c'est une décision pertinente pour yow waaw man jàpp naa ne parce que xam nga Youssou Ndour dafa woy nit ku dul juum amul ma ne ko si am na lu tax ma wax ko ma ne ko conseil constitutionnel ay nit yu dul juuma fa parce que <laughs> ah nos erreurs leurs erreurs s'imposent à nous. amul amul amul recours. <laughs> amul recours dinañ juum mais waruñ juum maanaam. donc ça veut dire que. leurs erreurs s'imposent à da ngay nangu. donc ça veut dire que nangul na leen ñoom duñ juum. entre guillemets quoi. léegi nag cour constitutionnelle peut-être dina la permettre nga am recours. parce que li fi xaw sëñ bi ci conseil constitutionnel bii. ci wàllu parrainage processus électoral bi ak li fi xew lépp wax dëgg yàlla te kenn amu ci benn pexe lu dul nangu loolu c'est un problème donc ba hmm. cour constitutionnelle vraiment man yaakaar naa ne war na mën a régler problème yu bari ba nga xam ne ñu trouver nit ñi ay recours yoo xam ne dinañ mën a jooy li ñuy naqare yooyu hmm. parce que les élections c'est les moment intense d'une démocratie hmm. et puis dans la vie d'une nation dafay am impact parce que day déterminer ñi war a yor at yii di ñëw alalu ak di dogal yeeg yooyu yëpp. donc dogal ci li nga xam ne daanaka mooy suñu avenir. Euh, Paasan Seck ci côté boobu dañuy jàllaat ci yeneen recommandation bokk na ci euh, création haute autorité de la justice boo xam ne day ubbi euh, justice ubbil ko citoyens yi ngir ñu mën ko ngir ñu mën cee jëfandikoo maanaam li nga xam ne moom la ñuy séq ak wàllum yoon leneen tam loo xam ne bëgg nañ koo teg mooy maanaam ñu fexe ba wàllum nouvelle technologie de l'information de la communication gën am doole bu baax a baax ci détention yi ñu gën koo améliorer euh, loolu bokk na ci li war a jubbant yoon pour yow. mais bien sûr euh, je pense que kilifa bi ma dem ba il a si bien campé l'affaire et vis de ton de ton questionnaire aussi je pense que Sénégal moo nekk di dem fu baax ci li ma yaakaar parce que am na fu nu nekkoon foo xam ni euh, dañu meloon ni nit bu ñu bu ñu jëlee ñu ne Sénégal benn nit la buy dox ba mu yàgg réer di delloo. ne xaaral ma dellu xool pour mën a retrouver le chemin wala boog mu wuti boussole bu la neexee nga nga dellu bu la neexee boussole boussole bi tey lan la moo di ne li mu la wax la conseil constitutionnel bi amul recours cour constitutionnelle dana am recours et je pense que les juristes am na nu ñu ko définir dans le sens où cour ba am na bërëb boo xam ni euh, nit dana fa am accès pour mën a def sa requête beneen bi moo di ne euh, fii Sénégal toll le pan et pilier bi nga xam ni réew mi def cee war a sukkandiku mu ngi tudd justice justice pouvoir la man ma bokk ci ñi nga xam dañu gëm ne conseil supérieur de la magistrature bii nekk ci sa titraay bi à l'écran président de la def daf cee war a génn ba mu set am na nag ñenn ñoo xam ni da la naan d'accorduñ si lool parce que bu buñ ko defee suñu juge yi suñu magistrat yi bu leen bàyyi ñu def lu leen neex yore justice bi di yëkkati di kii man ma bokk ci ne ñenn ñi ne dañ ne déedéet du conseil supérieur de la magistrature kay nekk ca bopp ba doon le président de la république doole jam ca am mu bare lool day suufeel justice ku mel ni Pape Moussa Sow maîtriser bi ne ma non non doole jamu am ca biir présidence ba en tant que président du conseil supérieur de la magistrature doole jooju la ñuy wàññi ci su mu nee révoqué su mu nee wàcce su mu nee dindi mais loolu yëpp ci peut le plus peut le bare na. bu mu nekkati président conseil supérieur de la magistrature waaye na bokk ci membre d'honneur yi. wala nekk un président d'honneur mm-hmm. bokk ca di joxe xalaatam ne leen lii boo ko defee moo gën nii ak na par contre. mu bañ a bi kon daal pour yow. mu bañ a am décision finale. par contre l'Assemblée nationale. qui est un pouvoir où les lois sont à la limite conçues et votées. mën am contrôle bi ci conseil supérieur la magistrature mu nekk un pouvoir équilatéral ou un triangle équilatéral où tu as l'exécutif le législatif et le parlementaire ka si nekk mën a natt sa morom dafa baax ci dëkk surtout dëkk bu bare alal ni Sénégal dëkk boo xam ni parce que Sénégal bu ñu demee ba jëmmi jamono ñu ne benn nit moo di décider lépp lépp lépp sur tout le monde yàlla doon ku baax parce que benn nit nekkoon na fi 2012 ba boo tombee ci ku mel noonu nooy def mën ngaa dem ba jëmmi jamono benn Bassirou Diomaye Diakhar Faye maandu lool ngay dem di dem mu pare keneen jël mais mun ngaa jékki-jékki daje koo xam ni dafa mel ni ki fi nekkoon ci jamono bu boobaa nan lay demee dañ naan non non non il faut qu'on change les règles du jeu moom mu ne leen déedéet moom mi décidé ne déedéet règle kenn mënu ko changer tànk maa ngi fi ñu nekkaat ci jafe-jafe. mais moom lañ fal. non pour dindi loolu. voilà voilà fu mel ni fu mel ni États-Unis par exemple am na fa ay dëkk yu bari yoo xam ne dañuy élire seeni juges dañuy dem battre campagne auprès des populations ñu fal leen. mais mais day am ay dysfonctionnement des fois. ci oui, mais, mais alpha ou il faut faire de sort que le système ne puisse pas être dans le sens profiteur du terme nga xam ni que man toog naa ci man la tombel la ma neexu def. loolu problème la donc ci assises yi jàpp naa ne et la posture du la République. loola noo wax maandu lu ngeen décidé bu fekkee yéen ñëpp d'accord ngeen ci ànd na ma si c'est excellent conseil supérieur de la magistrature il reste neutre il ne donne pas son avis il dit pas. mais jàpp naa ne defuma pour di ci des. defuma jéego pour génn. exactement après luñ ci wax. ok c'est bien mais je mën naa ko jël ci benn sens où je dis le président est comme qui dirait semble-t-il dit aux uns et aux autres. que conseil supérieur de la magistrature nekk lu ma intéressé mën na ma ko déggee noonu man aw ma ci problème ngeen bàyyi ma ci aw ma ci problème ngeen bañ ma cee bàyyi aw ma ci problème dès lors ko nag bàyyi ko ci man bokk naa ci ñi jàpp ne dafay nekk problème parce que trop de pouvoir baaxul ñu dindi ko si moo gën te loolu laa jàpp ni mooy li nga xam ne moo baax pour réew mi autant cour constitutionnelle c'est excellent autant le conseil supérieur de la magistrature ñenn ñi ragal naan non boo ko defee ce sera la l' assemblée nationale loi yi nga xam ne moom la magistrat yi di voté mais assemblée lañ kaa décidé et l' assemblée elle est représentative ou représente la population am na foo xam bu ñu fa eggee république des juges mënut a nekk. l' assemblée est ce que la autorité même nga baal ma ci dàgg bi. Ah. Euh, mënu ko jiite. est ce que la haute autorité de la justice. parce que loolu dañ ko bëgg a instituer. au Sénégal mais dire que l' idée l' que la autorité de la justice. da ngay dem ci ancienneté. les magistrats les plus crédibles. nekk les anciens ñoom mën nañ diriger seen organisation sax déjà seen biir ils peuvent le faire et que am na loo xam ne saa yi mënut a nekk parce que am na am bu ñu fa eggee boobaa assemblée day jóg ne attention lii mën nañ ko décider par rapport à telle réalité vis-à-vis de la justice parce que fi ñu bëgg dem baaxul mu nekk facteur bloquant positif mais si c'est le président de la République qui doit décider et de x ou y de à tort et à travers à tue lanu dundoon mën nañ ko at dundaat parce que ça dépend ba nit ngaa dajal soo dajee ku maandu xayrul boo dajal ku mel ni Baye Assane euh, mën naa ëppal. ma dem Ramata ja paasan li mu jàpp mooy buñ ko fa bàyyee keneen mën na ñëw après euh, def leneen loo xam ne xëy na du méngoog li nit ñi bëggoon bu boobaa day nekkaat loo xam ne problème texte lay doon est-ce que par rapport ak li nga dégg démb ñenn ñi ne le 8 mais du président Diomaye ñii ne ni oui ni non. Euh, par rapport ak loolu euh, da nga ci d'accord que ni war na génn ci conseil supérieur de l'administration. président Diomaye nee na bu buñ ko ñi nga xam ne ils sont partisans du mu des foofu buñ ko joxee des raisons qui peuvent le convaincre mu ñeneen ñi aussi buñ ko joxee des raisons pour me conseil léegi foofu problème bi lan la mooy conseil supérieur buñ koy dinga de la magistrature. il y avait la du chef de l'État dans le décisions dans les nomination et dans la carrière aussi de kii léegi nag man jàpp naa ne le chef de l'État il est chef de tout quand on chef de tout on doit avoir l'œil sur tout man li ma jàpp mooy man d'accorduma sax pour mu génn ci totalement parce que kilifa du sumeeku man dama jàpp ne war nañ trouver un juste équilibre boo xam ne moom dina mën a intervenir mais du doon loo xam ne moo ko moomal boppam du doon entre du rapport entre dominant ak dominé war nañ mun trouver une juste mesure boo xam ne bi moom dina ci bàyyi wala bu ñu amee yenn kii ñu laaj ko xalaatam tout ça war nañ ko mën def euh, déjà ñi nga xam ne les premiers concernés l'union des magistrats du Sénégal ñoom ñi la daan wax ne ñoom dañoo bëgg conseil supérieur président ñoom fi mu toll nii lan lañ la wax ne ni ils sont pour le maintien du président de la république boobu jaaxal nañu bi fi keneen président de la république comprends kii ñëw ñu ne na toog depuis des années loolu lañ la wax ren que finalement kon baasal di wax mënul am nga baal ma mooy keneen ñëw après ñu bëggaat mu génn parce que ay texte bu ñu koy def ça sera ça doit être général warul waruñu ko def selon paasan la après bu ma dem